dëkk ci ñaari élection yi passé ñoom ñëpp dañ leen duma ay liste remplaçant ñoo leen di duma ban pois politique la am nañ ma wax jël leen kenn kenn ministre yeeg premier ministre ak yëpp dóor nañ leen élection locale duma leen élection législative kon du ci administrativement du ci politiquement du fenn foo mën a nattee du ci prise en charge des préoccupations de Sénégalais du fenn foo mën a nattee ne ñii gouvernement de combat la mu des nag kon ban combat combat ak opposition c'est pas un un escadron de bras cassés et de canards boiteux qui va combattre l'opposition kenn ci ñoom gañewu ci bureau de vote du ñu ñoo ñuy combattre moo wax leen nag vrai gouvernement de combat Macky Sall xam ngeen lan la général Moussa Fall la commissaire yàgg la une partie de la justice la et une partie de la presse la lii mooy gouvernement de combat Macky Sall du lële général Moussa Fall ak yàgg gëmloo ko ni jënd na lu doy ci ngànnaay ci grenade lacrymogène ak leneen ak leneen ba ku yëngatuñu duma la moo tax lu xew ci réew mi ñu génne char de combat fu ne pour dox ci ci ci ci ci xelu set euh, xale yi ba dootuñu ñeme mais dañoo xamul lu xew laajal Ben Ali laajal Moubarak laajal président Soudan gis nga un peuple qui dit non gisuma gendarmerie wala police bu koy téye yooyu ay waxu caaxaan la ñaareel bi mooy une partie de la justice sénégalaise est-ce que tey xoolal classe politique bi su ñu nee dem élection 2024 nee nañu Khalifa Sall du doon candidat nee nañu Karim Wade du doon candidat léegi ñu ngi rumadaat naan Barthélémy Dias du doon candidat Déthié mii am na benn sursis. man moom ma teel ko wax gannaaw yàlla amul luy dund lu ma mën a tere ne candidat loolu moom du lu ñuy wax waaye lépp fan na jaar mu ngi jaar ci justice ci ay tappale yu kenn xamul soo joxee union magistrat jóg mbel mbel mbel mbel mbel nun kenn mënuñoo xokkatal kenn mënuñoo intimider gis nga réew mi lu fi jar a wax yëpp dinañ ko wax parce que dans une démocratie tout se discute amul sens interdit bu justice defee lu dul yoon ñu wax ko tey la la justice et le premier bras de Macky Sall moom mooy instrument pour la liquidation politique des adversaires de Macky Sall justice waaye nag lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru de nañu tey parce que ñun ñëpp sénégalais lañu te kenn ëppalewul kenn ci dëkk bi la press maa ngi félicité Barthélémy Dias li mu wax keroog dëgg la une bonne partie de la presse bokk problème la ci Sénégal barki yàlla booy xool presse Sénégal nga xool presse Mali wala presse Burkina da ngay rus c'est devenu un problème la ko andi nag yéen journalistes yi taxul yéen ñu wax de yéen moom ñoo bokk coono ñooy naanandoo suñu lacrymogène bu ñuy tourner ñooy fanaanandoo ci àll bi seen patron yi dem mbëkk fële ñu jox leen ay milliards te duñu leen ci jox ñoom la ñuy waxal ay dóorkat ay mbëkkkat nguur gu ñëw ñu naxanteeg moom laxas si moom ñooñu ñoo tax ñuy wax dafa am jamono nit ñi dañoo gëmoon ni le la la quatrième le quatrième pouvoir c'est la presse da ko daan dégg même dans les livres de livre de droit constitutionnel dañ ko doon wax moo tax ñëpp dawoon dem uti organe de presse ne su ma ko amee am naa moins de presse de pression am na waykat bu ne woon euh, nu mu ko tuddee ouragan ëppal asamaan Euh, jant leer ma jànnoog satellite satellite woon ma feneen feneen dinaa liggéey ba am lu ma jëndee satellite nangam nangam boobu ngént bu yàgg la woon su ma juumul kàddu yi la ñu jàpp ni ku am sa groupe de presse soxloo parti politique te yaay ëpp doole parti politique yi soxloo nekk président de la république te ëpp doole président de la république bu ko defee mu doon moyen de pression et de chantage sur les gens et ça marche avec les petits président yu amul benn personnalité xaalis bu ne nga joxe ko naan na ñu bind lu baax ci man ak bu ñu nañu bind lu bon ci ñële mais loolu dafa jeex tàkk la jeex dañoo nekk jamono joo xam ni presse sax léegi mu dépassé parce que ñii ñi ñëpp journalistes yi wóor na ma ku nekk am nga sa benn blog sa benn page Facebook booy def sa benn site internet ku yaakaar ni. yor nga groupe de presse loo neex nga wax ci nit ñi te li gën a garaaw mooy kenn du la tudd yow mun nga taxaw wax la neex ci nit ñi ku la tudd nga mel ni mbott bu wànn bu wànn caméra loolu au nom de quoi au nom de quoi invité nit ci plateau mel ni ku ku lu ne nga yàq ko ko mu dóor la benn nga ngay bëgg a xatraay au nom de quoi cette dictature ne marche pas en tout cas mois ça ne marchera pas avec moi je respecte chacun et j'exige le même respect de chacun lan la ñu fi bindalul ci ay ngeen wax ngeen baal ma ci wax ji may ay fenu nen l'observateur en pleine campagne Sonko a reçu cent quatre-vingt-quinze millions de Tuloy Oil est-ce que am na lu gën a garaaw loolu kan moo ci wax ngeen foog ne loolu dina continuer noonu dans ce pays parce que yor naa sama organe de presse rek lu ma neex ma bind ci nit doo xool ni père de famille la doo xool ni dafa am njaboot ci politique ay milliers de personnes topp ko bañuñu ku def nga am preuve ni def na nga wax mais sos suba ngoon guddeeg bëccëg sénégalais dañuy toog di seetaan seen télé nit di wax ñu naan kii moo mën a wax lu dul noonu parce que nit ñi léegi dañoo yeewu moo tax li Barthélemy def ànd naa ci man réew mii il va falloir crever l'abcès te na loo xam ne dootuñu ko nangu lii nag mooy gouvernement de combat Macky Sall gouvernement combat Macky Sall c'est pas ces canards boiteux là de ñii politiquement ku ci dem terrain bi ne damay quartier laa bëgg soo demee ñu duma la kan moo ci gañe wax leen ma am na ñu demoon élection locale fii dakaar defe naa est-ce que am nañu sax 5000 voix am na ñu demoon yeneen dëkk yi fu nekk fan la ñu gagné bañ naan ñii mën nañu def un gouvernement de combat contre qui donc ñu feddali nii lii lépp ànd nañ ci la ca des nag. wax na kaaw Barthélemy Diaz man askan wi lay waxal askan wi moo war a protéger les mandats qu'il donne puisque institution yi mënatuñ koo def assemblée nationale mu fi nekkee xam nañ ñu jaarul yoon ñëpp xam nañ ko li xew ni acte de poursuite la parce que poursuite yi mi ngi commencer avec réquisitoire procureur mi ngi jeex quand le jugement sera loolu mooy poursuite donc en appel acte de poursuite la preuve le le procureur est venu defaat réquisition am daal di demander cinq ans loolu du acte de poursuite kon lan moo tax assemblée nationale ne ci cell moom di seetaan pour que un député en cours de session ñu mun koo euh, condamner sans pour autant que l'assemblée nationale n'ait levé son immunité moo tax ma ne affaire bi dootul affaire u assemblée nationale donte suñuy député dinañu déposer li ñu war a déposer semaine bii avocats yi dinañ def euh, pourvoi en cassation mais dootul affaire assemblée nationale la ma waxoon ba ma ca tollee man mois de février daaw dama leen ne lii du mbirum justice mbirum jaay doole la ak mbirum politique donc politiquement lañ koy répondre askan wi moo war a protéger ses mandats parce que dañoo jël Barthélemy ne kii ab criminel la askan wi leen d'accord criminel boobu moo ñu doy pour jiite la capitale du Sénégal ñu jox ko mandat askan wi dellu si waat criminel boobu moo ñu doy pour ñu jox ko mandat mu dem assemblée nationale kon askan wi weddi na loolu loolu doy na ci weddi moo tax askan wi moo war a protéger ses mandats parce que fi ñu bëgg a jëm mooy foqati soo mandat de député ak ak xool ndax mën nañu foqati soo mandat de de ville de Dakar loolu duñ ko nangu li may daanelee daal pour bañ a guddal yow askan wi laay waxal rawatina yéen ndaw ñi rawatina yéen ndaw ñi. bu leen kenn ëlëmal ak wax yu amul solo ay def na gouvernement andi na premier ministre dàq na premier ministre dugg na fii génn na fii gouvernement bi dama cee cof rek dinañ ci wax bu jotee parce que xam nañ leen de dañ ci wax bu jotee te nag combat bi mu bëgg dina am ma nga commencé assemblée nationale li mu ragal dina am ministre yëpp ñoo ngi leen di xaar assemblée nationale benn benn xam nga ñun. ay benn benn lañ fa newoon décce Sonko Aïda Mbodj te daan daan nañ leen duma duma yu métti bii paa nag dina saf-sàpp assemblée nationale projet de loi bu ñëw loi de finance bi yéen ñëpp di ngeen gis ren plénière yi nu muy demee dina neex de loolu nag moo tere nelaw makki sal waaye li may wax ndawu senegal lii ñuy def nii yëpp cosmétique la ak bugg taal ay contre-feu pour réeral leen xam ngeen lan laa bëgg ngeen def focus li ma bëgg ngeen jàpp ko moo tax man débat troisième mandat duma ci dugg xam ngeen li ma bëgg ngeen jàpp ko Macky Sall 2024 février 2024 il sera plus président du Sénégal na fi jóge abal ñu réew mi na am ngor gu doy nag ndax askan wi des desewu ko dara nu nous sommes 17 millions de sénégalais ñaata ñoo ciy mës a nekk président ñu xëy jox ko président defu ci dara lu nit mun a wax. mu dellu si ne joxaat leen ma ñu jox ko constitution bi ne kenn mënul tegle ñaari mandat nul ne peut faire deux mandats constitutifs bu gorewul nag na ko askan wi woon naka lañuy def ak ku gore di mooy ci nii wala ci nële Macky Sall mille vingt 2024 dina jóge ci réew mun na am na ñu koy xalamal nekk ci plateau yi di ko waxal lu ko neex ñu nag ñoom xamante nañu te su dul woon alkaati gu dox suñu diggante ba ci keroog assemblée nationale bu dul woon alkaati gu dox suñu diggante ñoom xam nañ du demee nii noonu la demee nag ci lépp lu ñuy def xam nañ ni ñoo leen ëpp ci réew mi ñoo leen ëpp ndaw yu ànd ak ñun ñoo leen ëpp jëpp ci ñu ànd ak ñun ci diaspora bi amul fenn fooy natt foo xam ne tey Macky Sall ëppale nañ ci réew mi lu dul nag yaakaar ci Moussa Fall yàgg ak justice loolu nag dina jeex ci réew mi ñu ngi leen gërëm di leen sant je vais résumer brièvement en français que pour ce qui concerne l'Assemblée nationale Je tiens à dire